dugg ci kàddu yi santaan ñu jox soxna sëñ Souleye Sossou woy jërëm fi génn àdduna sëñ Abdoulaye Diouf ñi ñëpp ñu bokk ñaanal ko yàlla mbokkam jullit la woon doon dundandoo ñun ci kaw suuf si mu génn àdduna kon na kenn ko ne jàng faatiha benn xul wala wax ñetti yoon salaatu ala nabi waaw ah, mbokkum suñu fër Njaay Ibrahima Njaay hmm? ci allahu akbar waaw ah, kon ñetti xul wax ñetti waaw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 لم بلغ سبب ما خرنا وندر ما كنا نعمل سبيل إن نجعل جتال يولب سورة الإخلاص نيت يوني ني واخني تي كامل القران كون كوكو جانغال نغا رفيتي موم نجارتو بو باخ باخ ين نان يالا يو يو آه، يولب سوره الاخلاص سوكو دافي dañuy ubbil sëriñ bi kàddu yi rekk ci julli gi di alxuraan ju tedd ji nga xam ni maa farat na fil kitaab min seen la borom waxoon bàyyi wunu wala sàggani wunu dara loo xam ne lu am njëriñ la lu nu war a indi loo xam ni indiwul ko ci téere bi kon lépp lu mat a indi rek indi na ko ci ba ba àddinay tukki lu fu doomu aadama mën a àgg ci xam-xam fu àdduna mën a àgg ci ay soppaxndiku alxuraan day taxaw ci kawam su gestoo su bëggee génne ko rek dana am lu ko gindi ci alxuraan di la xam ne mën nit mënta àgg fenn ci ab cër ci yàlla ba jéggi ko waaye moom na naan njool na ba kenn mënu koo jéggi waaye gàtt gàtt ba mën a kenn mënu koo boromlu noonu la alxuraan demee ndax ñi nga xam ñoy ñooy gidd yi njiit yi nga xam ñom na seen borom yëndu won ñom ñëpp seen mission ak seen jaar-jaar sun borom da ko leral ba mu leer nañ ci alxuraan bo sété julli tay ñaar isib bi indi na ay limi yonente yu takku seen jaar-jaar ak seen doxin ak seen melo tud na ci yonente bu ñu wax yonente yalla salih mu nekkon ku yiwu ku dal ku bax ku xam ni moom it histoire lu lu am solo la lu lu am solo la tudd na yonent yàlla Suhaybu yonent yàlla Suhaybu moom it ku riis la woon ku ku boo jàng alxuraan ku am solo la waaye mooy sancoon dëkk bu naan Madiyana wa ilaa Madiyana aqawm Shuayban te defe naa Sëriñ Shuaybu ibnu Seyxul Xadim moom it moo sanc Madiyana gi ci Tuubaa moom la ko Sëriñ Tuubaa duppe Euh, yonente yi ñi ci alxuraan indi seeni tur ñaar fukk ak juróom la ñii ci lan bokk kon ñoom wane na ne ay nabiyun la waaye ay mursal lan boo gisee ñuy wax mooy ko xam day nekk nabiyun waaye laysa mursalan nabiyun da kun soloo xam-xamu nubuwa waaye yónni woon ko mooy ni suñu doon misaale rek ci aadama ak ñu mel ni ñoom mooy anbiya ñoo ñi ne sëñ bi na ama jamihul anbiya wa rusul faqaqadun min al ulafiya rajul yi ñep bo len sété nak ñent yonent ñoo ci nek arab ñent yalla salih mi ci la bok ci arab ñi jang laq arab ci la bok ñent yalla soyibu ci ñi laq arab ci la bok ismaila ci ñi laq arab ci la bok way ki la ñent moy muhammad rasulullah yonent yi ci dess yep ajam ajam nak, bu ne la ajam ajam pël a ngi ci bir tukulo a ngi ci bir tuba ba ngi ci bir angale ngi ci bir turke ngi ci bir perse a ngi ci bir lang xet lang yu bari bari mi ngi ci biir waaye ñeent yonent yi nga xamne ne kon ñoo ci jang ñoo ci lak arab bo ci muwahib khudus bu xudóos tur yonente yëpp it bu defee nañ ñoo gis Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam yonente yëpp gisuñu ko ñii ci gént la Jibril daal di kek ñoom ñii ci ci ilham maanaam wala hatif di dégg kàddu dul gis jëmm ja moo tax ci la seen température ëpplante ci maam seeni jëmm seeni tolluwaay ci la ëppante doole boo jàngee xilaasu sahab bu moom El Hadj Malick radiyallahu dalay wax yenent yi ko gis ak ñaata yoon lan gis Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam sàmm ci Ibrahima ba ci Nohin ba ci Isa alayhi salaatu wasalaam ba ci Moussa ba ci Muhammad rasulullah daanaka ñuy ñu ëpp lu gis yonente bi ñu gis ay benn benn rek na ko dak ñii dañ leen daa bindal aliwa wàcc ci seen kaw ñii ñi bind ci ay xobi garab ñi malaayka mi di wax te duñ ko te duñ ko dégg ñi gént gént dikkal leen noonu la yonente yi daa daa demee waaye ñoom ñëpp nag alxuraan mu ñaar fukk ak juróom rek la ci tudd yeneen yonente yi ci des ñetti téeméer ak fukk ak ñett néew na sax nga gis seeni tur ci yeneen téere yi boo demee ci eh, yenn ci mu arrixoona yi ay badaayun shuhur rek ay saadul maat téere yi ñuy indi ay benn benn yenn tur waaye néew na nga gis lu mel ne xansalatu ibnu safaan ci suratu xajji eh, wa qasrin masidin kooku ak li ko sababoon ak giirug sàmmooda ka ko njëkk a nekk njëkk aat ak seen giir am seen giir yooyu seen yenent yi njëkk yooyu ñu yëpp daanaka alxuraan day tudd seeni jëf ak seeni mission waaye tur du ñëw loolu it am njàng la moo xam ne waaw mun na ma xasal naa aleyka sunu borom dana woon yenente yi am na ci ñooñ noonu yàlla ñu la nettali seen xisa waaye wa minhum man lam naxsus aleyka am ñoo xam nag dund ko nettali ndax yàlla xam la mu ci jublu waaw ndax bu njëkk boo gisee ras si di am ak giiru sàmmoo da am na si giir yoo xam ñoom dañ leen a soppi ay doj ki ni wax Euh, al iskandariya mooy sul xarnay ni bokku sa bokku tëg way sil xarne yi iskandariya kooku ba muy wër àdduna bi demoon na ba gis giiru sàmmooda nii lañ yàlla soppee woon ay jëmm ndax rey gun reyoon yonente bu ñuy wax ansalata ibnu safwaan wa bi'run mu'attalatin wa qasrin masirin ban ko reyee tàbbal ko ci teen ba teen ba ca ñàkk ndox àdduna bi jeexoon daanaka ñàkk ndox àll bi yépp nekk deret seen borom tëkku tëkku leen nag sëpp leen ay doj da ngay gis nit ku taxaw sol la mu sol mel yor melawu jëxëran te fekk aw doj la xas fa ak mas yëpp da daa am gis ngeen Moussa bi muy xas fa Daawuda fa xasaf naa bii wa bi deerihi al ard wa maa kaana lahu min fi'atin yansurunahu kon dana yàlla yàgg na ko def ñii nag yàlla dana na fonk Saalix Suaybu ak xet yi ñu tudd yooyu nak nag yenn ci yiw la ñu xamni seen mission lu leer la ku seen ne ak lako taxajuk ba ci lut ci biir mi ngi tuddu ma xamul tan minkum bi ba'idin ki ci kim ci nag yonent yusuf yusuf nak istiwaram euh dafa dafa ëpp njang ci kep ko xamni ndaw nga ci kep ko xamni ne yaa ngi ak muñ waye ci kep ko xamni way jur nga way jur nga ni nga ni nga wara taxaw sax sax jabot ak képp ku am ay doomi baay ak képp ku yàlla jox responsabilité laxad kaana fi yusufa yi ixwatihi ayatun lisaa'ilina moo tax seen borom wax na ko daane laxad kaana dëgg dëgg nekk na nag ci yusufa mii ak mbokkam yi ayatun ay kéemtaan lu yàlla ni kéemtaan la rek kéemtaan la kéemtaan yu rëy la waaye nag lisaa'ila ñee ñeel wooy laaj ñi mooy ñi koy laaj ëllëg nu mu demee loolu xese yi gudd gudd la yaakaar naa sëñ bi jaar na ci ba tàyyi waaye xisa yusufa xëy na bu subaa sëñ dana si gën a dugg mu gën a yaatu waaye doom ji diggal baayam fa mën a mujj ëllëg la ko mën a amoon njariñ waaye ku weddi sa baay sa baay complètement weddik baaxam weddi njariñam dafa dal yonte yàlla noohin alayhi salaatu wasalaam jël doom dal doom ja noohin junni at yu manqué juróom fukk am na ko ci àdduna bi juróom ñaari siècle siècle muy téeméeri at yoo xam ne askan sàngam danañ juddu màgg fi ba génn ba jeex takk ba giir googu amatul ñu mag leen ba noppi giir ga jeex moom mu des fi te li ko gëm lépp ci àdduna matul juróom-ñetti fukk mu sonn lool boo gisee inna na nuuhin wa inni kullama daawtuhum li taxfir lahum jaaloo asaabiahum fi asaanihim yemuñ sa sax waaye wastax saw siyaabahum waxtu bu gisee mbooloo ñëw di leen waar ci yàlla dana eh jël seen baaraam yi def ko ci seen nopp yi ñu def nii day wax ba sonn kenn du ko déglu mooy écouteurs yi ñu takk rek nga xam na nga jël suñu gi jël si écouteur takk sa nopp doo dégg li muy wax daanaka dañ mel misaal mu mu ñëwaat léegi wala ñu ne eh góor gaa yi ñëw de sangu leen tëdd sangu nga ñëw yàlla nee na yàlla nee na ba tàyyi kenn du ko faari mu dem yoonam kenn du ko gëm te li gëm ci juróom-ñett fukk yoy du ay nit dong mbaam ak bëy ak xar ak janaaw ak yu bari ñangi ci yafus, ak yeen ci jine yi mel ñu ci biir ci dem ay dem adam amon na dom doom yafus ak kanhan ak uh, mom no ci bopum ñett ñett ñooñu ak mom ci bopum bi ci la yalla tukale aduna yalla ba ko motax nuhin mom lañu abul basar Sani. aadama mooy abul basar al awal noohin mooy abul basar sani waaye doom ji bi suñ borom digalee noohin ni ko ginnaaw ñaan nga ma àdduna tukki kon defaral gaal diggante bi muy jëmbat garab ya ak ba gaal ngay dekk daanaka ay téeméeri téeméeri at la diir bu yàgg yàgg la ndax dafa noon rabbi laa tasar alal ardi minal kaafiriina dayyaaran bul bàyyi ci kaw suuf kenn na ñëpp fatu ndax in innaka intasarhum soo leen bàyyee fii ci àdduna yuddiloo xibaadaka dañuy sànk sa jaam yi rek tawala wala yalidu du am ay dom moy dunu jur ila fajaran lu ay kàccor rek kon loolu la ñaanon loolu nak indi nako problème bu yee yomay xiyam dana tax duma na ramu xeet bu xet bi ñewé ci moom yomay xiyam ne ko tinun nu ci yalla dana len ah ñaanon na sun borom tukal àdduna bi de ba ñu bari fatu xamu na lama ci yalla tek fi tay ci bis ci motax mënu ma ramu kenn motax lo mer mer bul ñaan kenn yalla ndax amana nga ñaan diw yalla koko fatu yàlla mën na ko def moo ko yàlla ko def waaye yow mi ko ñaan yaa yaa responsabilité bi man xatala nafsan bi du'a bakkan ci ak ñaan fakk annama xatala bi nafsan bi mel nga ne ku jël jaasi bocc ko nit mu génn àdduna waaw kon ñaan nit mu faatu ak jey ko jëm ko jaasi yaa ko ñaan yàlla rey yàlla yaa ma ko ñaan mu ngi yaa ñaan am xaalis yaa ñaan yaa yaa ñaan diw faatu kon bul ñaan mukk yàlla na nga torox yàlla na nga ko bu ko dara rek ba léegi yaa responsabilité waaw loolu kon kii ma noohin lii dana ko indil yama xiyam mooy mooy mooy duwaañu yonente yi mooy bàyyi mbindéef yi bu nit ñi jàqi ëllëg taxaw ñett ñetti ñetti téeméeri junni at ba sonn ñëpp sonn ñi nan dem ci yenn yenn yàlla non ndax moom ak ci yonente yi ndax yàlla rus ko mu tinañu bu ñëwee wax ko dana ah wax dëgg yàlla mënuma ñaan kenn ndax ñaanoon naa yàlla mu tukkal àdduna bi bakkan ñu bari faatu ci loolu xam xam xam fan la ma yàlla mu jël tey jii dem nañ ci yent yàlla mu tinu leen ñu dem ci isa isa ni leen ah man kat dan maa tumaanoo yaay doomu yàlla kon xisa yi dëgg la dem ci Moussa Moussa ne ah man kat rayoon naa nit ñu dem ca yenente yi bari ba ni naan dem ci Muhammadu Rasulullah moo tax moom rek mooy mën a ramu xeet bi bu ëllëgee waaye jëwriñam jënam nena antal karim anal khadim dahran wa dimu fii ka sanaay mi yàgg na ci aduna lol si mi dana ko leral nu muy rek yàgg na ci aduna lol ba ko borom digele mu ñaan gi wara nangu sun borom dane ya ardu abla ma aki ya wasusi bal balal sa ndox mi nga ball ko muy ndox mu tang jir wa ya sama uqla ya asman xelal asamaan di xelli suuf di balla kër àdduna bépp daanaka fees dell ak ndox noohin wargaal ga ak ñi ko gëm doom ja lànk ne du ma gëm noohin nag yaa bu nay irkab ma ana yow sama doom ji kaay war ci sunu gaal gi doom ji nag ah dem leen xaala sa awi ila jabalin eh, ilan maa yi sa awi ila jabalin yax si mene mene maa yi dama yëg ci kaw montagne mu ne fa yëg danaa mucc ci ndox mi ne ne ko ah laa asimal yawma min amrillahi tey kenn du mucc ci mbugalum yàlla dangaa ñëw doom ja weddi baayam loolu moo ko alaka nooxin di ñaan seen borom ne ko rabbi inam nii min ahli wa inna waxdaka alxaq wa anta ahkamul hakimina suñ borom sama doom jaagi ne leen nar ci ndox mi de te sama ci man la bokk te wa inna waxdaka alxaq te sa ràndiwu lu dëgg lay doon te yaay atte yaay atte sa doom bokkul ci yow de innahu laysa min ahlik nekk bokk ak nit deret taxut a bokk pas-pas waaw laysa min ahlik innahu amalun xayru saaliin moom jëfam du jëf ju baax kon bokkul ci yow kon nuuxi ni mu koy jur jur jur jur ne yàlla nee na nu ki sa doom ji bokkul ci yow te nag bis naka tey falaa tas ëllëg ni maa la sa bii in mun bu ma laajati loo xamul waaw ko laajati kat ki bokku ci yow te muy baye bi doom ji weddi bayam lolu motax tax mu lapp ci ndox ma te bu ëllëgee safar la jëm lolu bokk na si ni ñu war a jàngataat ci biir ndax si nañ si wax ni mak ak baye kenn wuro ko ñàkk waxtu woo la sa baye fat na bik bala jant sox wutul ko la mat baye nga diko diglu na la sa baye da digal mu di ko digal moy mhm. yoon yi señ bi di wone nee na ba jant sooyee ba sama génn àdduna balaa guddee balaa balaa balaa guddee lëndëm wutul ku la mat mag nga di ko diglu mu dina digal la la sama daa digal mu féetale fa la sama daa digal yooyu yëpp ay loolu lépp alxuraan day jàngale ndax wa tilka wa tilka al ayaamu nu daayu la xamee jamono day répété wu bu fekkoon xisa yooyu amul ñun duñ xam fu ñuy teg suñu tànk la xewoon dimboo ca ngay jàngate waat xam fa ngay tegal sa tànk àdduna àdduna jamono day répété loolu moo tax xe jaar jaari gaa yu baax yi di mat di mat di jàngataat nga ne ah diw kat nangam daloon na ko doomi Nuux ji ba mu weddee baayam di yokk daloon soxnaam si kasaalika wa daraba laahu masalan lisiina amanu lisi kafaru soxna si nuuhin mii nga xam ne junni at ak nangam ak soxna si yonent yàlla lootin seeni jëkër ay yonente lan yu tedd yu mat seeni jabar nekk ci seen biir kër dinañ seel ba noppi wedd yodd seen nubuwa moo tax mu ne yàlla ne kaanata nekkoon na ñoom ñaar taxta abdayni day saali ay nii ci ron sama ñaari jaam yu baax yu yiw waaye faxaanatahum faxaanatahuma ñu wor leen ñoom ñaar soxna nu nu wor noo ci nubuwa gi ko yàlla jox ni ko dob yonent do dara soxna lut wor jëkkëram fa na waaye nag fa lam yox ne yaa anhuma minallahi shay'an war gan war seen ñaari jëkkër yi dinañ jariñ ci yàlla dara bu ëllëgee yow xam loo leen def mu ne dama leen di wax yéen ñaar ne leen uddu xolaa yéen ñaar ñii uddu xolaa naara tàbbi leen safara ma àddaaxilina jëru ngeen di xool nooxin sama jëkkër la ak sama nooxin de uddu ma àddaaxilina loolu mooy seen fay ëllëg moo tax li li jàngale woon barki démb wa maratun kaanat billahi jigéen lu mu jaamu jaamu yàlla te diggul ndigalul borom këram boo liggéey di dem àjjana waaw bu jaamuwul yàlla nag diggul ndigalul borom këram nag mu gën caa doyati kon safara ji wan yees bi laa kon danañ ubbi sëriñ bi kàddu gi rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi